waaw maa ngi am mbégte ndaxte euh, ay femmes yoo xam ne ne ay kàngam lañ fii si commune u nekk si ginnaaw euh, groupement yu mag yu rëy de plus de 200 femmes ñoom ñoo rencontré wu ñu toog waxtaan def sunu assemblée générale constitutive ah à l'unanimité ñu jël ma tabb def ma présidente donte nekkuma ci ku ci gën a xarañ wala ku ci gën a xam mais kóolute moom moo tax ñu def ko vraiment ñu def ay seede yoo xam ne ni ne tax na lu ma doon def benn dinaa ko def fukk ndaxte ay jigéen bu ñu jëlee jiital la teg la ci kanam yow yaa war a takk sa sër te jàppale leen ci wàllu développement te loolu moo ñu tax a jóg. waaw mission boobu yomb na yombul yomb na parce que dañu nekk déjà ñun présidente de groupement bu ñuy tuddee waaw Kumba am depuis ñetti at liggéey yi ñu ci doon liggéey. donc li ñu décidé rek moom mooy liggéey boobu la ñuy jël gën ko yaatal ndaxte ñun ñëpp même mode de fonctionnement de groupement la li ñu bëgg mooy formation lu ñu bëgg mooy financement lu ñu bëgg aussi moom mooy ah ñu jéem a rendre les femmes autonome waaw parce que euh, tey nii bu bu ñu bu ñu nomee ba am sunu maire ba pare maire bi quelque que soit appartenance politique bu mu am ñun la fi nekkal ñun askan wi donc ñun ñi war nañ ko mën a wax ñun suñuy doléance ak suñuy mbëbët ci doléance yooyu bokk na ci ne ñun amuñu makaanu jigéen yi lu toll ne commune Sangalkam amuñu benn maison de la femme boo xam ne ne daf ñuy permettre comme genre réunion yu mel nii ñu mun ci réunion wala bu ñu bëggee def formation amuñu fu ñu formé woo wala wala wala wa ila